ñuy dalal tey euh, docteur Abdou Khadre euh, Sanogo um, psychosociologue la analyste politique également docteur ñu euh, tàmbaleeg li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci suñu société bi tey gis nañ ne violence bari na fi fépp foo ko natt jéggi na dayoo lu ko waral. waaw mais parce que ci suñu nekkin ci suñu doxalin ci ni ñuy waxee ci ni ñuy soloo. Mhm. ci ni ñuy kafee sax lépp dafa. Euh, laamisoo ak li ñuy wax mbiru violence mbiru fitna. Hmm. suñu société bi dafa jékki-jékki rek euh, di dox ci fitna di ko waxee di ko jëfee maintenant bi muy biñ koy yëg ñun. Hmm. daf ñoo bett yëgluwul. Hmm. mais pourtant amaana nuyu woon na parce que dañuy gis ci sunu théâtre yi sunu téléfilm yi ci sunu expression yi ñu utiliser euh, ay xëppante acide ay defante ay voilà donc ci sunu quotidien maanaam ci sunu dundu bis bu nekk. dañ ci yëg ni ñun ñu commencé di doxe fitna di ko waxe mhm. mais bàyyiwuñ ci xel ba loolu bett ñu nag. Mhm. léegi nag mu tombeek aussi euh, li nga xam ne dañ koy wax kenn mooy di kennu askan ñu koy wax famille. Mhm. ak bërëbu jàngalekaay ñoom tamit ñu nekk ci nasax gu metti léegi papa amatul jot yaay amatul jot donc xale li koy yaree da koy bàyyi mbedd. mbedd bi nag. foofu ngay jàngee saaga foofu ngay jàngee xeex foofu ngay jàngee bëri foofu ngay gisee jamante mhm. suñ ko bàyyee mbedd yamuñu ci ñu bàyyi ko aussi ak télé ak réseaux sociaux yi mhm. film yi cinéma yi euh, euh, aujourd'hui Hollywood film yi action yi mu lay tegal yëpp ay rayante ay tiirante ay ainsi de suite mhm. suñu téléfilm yi ñu lay jàngal nam ngay daye dañ ko dóor maanaam technique dil euh, voilà donc élément yooyu yëpp nag d'un point de vue symbolique dafay soppeeku ci suñuy comportement aussi physique quoi. bu dee ci niveau yëpp nga koy retrouver kër ga ca mbedd ma fa ngay jàngee ak la ngay seetaan comme ni nga ko waxee environnement bi yëpp loolu yëpp wër la muy violence ndax ñun dinañu am chance pour mën a jubbanti mbir mi. waaw xam nga chance moom. xëy na nit lu bàyyeeku ba ne non ñàkk naa ko une fois pour toutes waaye daal dama jàpp ni buñ ko bëggee saafara. Hmm. dinañu dem ci comboxtal gi mooy lu ñu jéem xoolaat nan la ñuy defaree toogaay yi ak nan la ñuy tabaxee nit ci biir askan. Hmm. dans tous les projets on nous parle d'émergence projet de développement tel projet de développement alors que le vrai projet au Sénégal mooy ñu xool nan la ñuy defaraatee penc mi ak toogaay bi ba sénégalais homo sénégalensis maanaam modèlu sénégalais bu mucc ayib. Hmm. gi ñu bëgg ñun pour mu doxee ci biir askan wi. Hmm. ñu jéem ko tabaxaat te tabaxaat ko nag xëy na weesuwul. defaraat li ñuy wax ancien type de sénégalais. fii dañuy wax nouveau mais pour man nouveau bi moo bon. Hmm. mooy ñi nga xam ne nii tey ñun ñoo ñu doon représenté ci askan wi muy sëriñ si. muy nit ñu baax ñi muy waajur yu baax yi. Hmm. nga xam ne ñoom dañoo amoon jël ay vertu ñu ngar ngardaajoo ko. Hmm. ah ñu ñu laxasaayoo ko. ci njub ci baax. ci xam lu rafet. ci kàddu gu rafet ci joxalan jokkalante ci lu rafet. ñooñu ñëpp aujourd'hui ñooñu la ñu war a xoolaat nag léegi nan la ñuy tëggaatee sénégalais boo xam ne nii day jël modèle boobu. bon su fekkee ne mm-hmm. Sénégalais bi dafa jël model boobu nag. Mm-hmm. amaana su boobaa sans aucun doute xëy na dinañ réussir le pari si vous voulez de li ñuy wax ni moom mooy un peu société bi nga xam ni am nañu yaakaar ni dinañu doxalee wala ñu wala ñu jëfee loo xam ne lu mucc ayib et justement yaa ngi ne la vieille école maanaam ñu xool ko ci foofu comme modèle tey ñi nga xam ne ñoo ñu féetee mag ñu war a doon ay sage tey mais euh, docteur da ngay gis benn euh, des fois ci mbedd mi ci oto yi fépp mag bu waxee yow mi xale bi nga rus. Euh, loolu tamit wala sax politique yi ñi nga xam ne chaque jour nit ñaa ngi leen na jàkk di leen xool xale yi di jàng ci di roy ci ñoom euh, bu ñu waxee tamit nga am ci euh, loo yëg sa yaram tey ndax tamit foofu dina dina dina yomb ngir nag ñu jële fi ñu rootee fa mooy ñi nga xam ne nii dañoo taane wala ñu rootee ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo sañcoon Sénégal bu njëkk ba mais ñii nii ñuy wax nii sax taxul ñu koo nekk man mm. mais loolu nag dafa nekk royukaay ñu dañu nekk ci crise aussi am seetu seetu mooy fi ngay xool mu lay wan ni nga war a doxee wala nga am busol busol mooy li lay niital su lëndëm jotee mm-hmm. ah. Mm-hmm. Euh, te loolu dañuy wax ne euh, ki nga xam ne nii moo la mag jiitu la ci néeg bu lëndëm moo la wax ni ñuy toogee fii nag ñi ñu jiitu ci néeg bu lëndëm yi nga xam ne ñëpp dañ leen a topp de manière aveugle. Mm-hmm. ne ñoom xëy na am nañ ci ñoom yaakaar ba su fekkee ne jox nañ ñu toog wan nañ ñu fi ñu war a toog mën nañ fa toog. Mm-hmm. nag dafa am fu muy sooxee benn bi ci ñaari kër nag. la gën a fëse mhm. benn bi mooy ñiy woowee seen bopp ay nitu diine mhm. beneen bi mooy ñiy woowee seen bopp nitu politique léegi-léegi ma dégg ñu a way vie privée vie attention soo xasee ba def politique yaa nga ca kanam ci nekk ci kanam nag li muy wane ci ginnaawam dafa war a nekk lu rafet lu nit ñi war a a topp fan yi yaa ngi mhm. fi ñu ay xuloo xiir ak a ngaayoo bu dul jeex suñ koy dégg ñëpp xam nañ ko. Mhm. donc jafe-jafe yooyu nag aujourd'hui moom moo nekk li nga xam ne nii dafa war a nekk ay matuwaay yu nit jël defaraat toogaay xoolaat toogin bi euh, ñoŋal aussi doxalin bi te loolu suñ ko bëggee pour man. Mhm. am nañ ay école mhm. Seydi Hadji mi ngi fi Serigne Touba mi ngi fi Baye Niass mi ngi fi. Euh, Monseigneur Yassine Thiandoum mi ngi fi. aujourd'hui ci église bi ak ci kër yi yëpp. même ñi nga xam ne sax jógewuñ ci ay famille religieuse mag ñi dañu woon façon yiw boo xam ni même suñu suñu amee lu leen naqati xamoon nañ nuñ koy nuñ koy defar mhm. mais léegi nag kokkandoo ak roy dàq bu jéggi dayoo daf ñoo yóbbu ci seetaan film euh, ja lire ay téere mhm. di jàng ba jàng ñoo xam ne nii seen culture ak suñu bos dafa wuute mhm. te wala fi dañuy lépp ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem aussi fekk fa boroomam mu toog ñun nag tant que delluwaat suñu ànd tabaxaat sénégalais modèle bi. Ah. du ñu jug ci yi. am tamit euh, violence ci wàllum politique bi nga xam ne daanaka moom euh, douze mois sur douze politique bi dañ koy waxtaanee euh, tey discours bu bu am contenu déggatuñ ko lu bari ci faralatuñ ko di dégg ci politique bi mais li nga xam ne mooy violence bi xuppante beeg yooyu moom la ñuy gën a di mettre en exergue ci politique li ni mel tamit ndax mën nañ ko fa boole ci lañ ko jàngatee nii. waaw foog nga ci politique dañuy wax ci tubaab ne arme faible yi maanaam mooy jumtukaay bi nga xam ne ni ñi nga xam ne ni seen xel hmm. euh, dëgërul ci xalaat ak ci xel moom la mujj dem di jëfandikoo hmm. dama yaakaar ni politique bu fekkee ni sa parti dëgër la d'ailleurs aujourd'hui Sénégal dañu am crise des partis politiques hmm. parti bi ci lañ la war a jàngalee nooy waxee ci lañ la war a jàngee nooy tontoo koo bokkul ak gis-gis. Mhm. ci lañ lay jàngalee noom ñu nan ngay attiré ki nga xam ni bokkul ak yow xalaat nga mën a wax ak moom wax bu ñoŋ bu ñëw wuyu si mais aujourd'hui parti euh, mhm. bi. Mhm. formation du militant. maanaam ki nga xam ne daf may topp. ànd ak man ci gis-gis ak ci Pastef. xam nga lan laay defaraatee ci. ci ci ci waxin ci mm. nekkin ak ci doxalin mm-hmm. parti yi nag ñoom dañuy judd rek daw amuñu temps boo xam ne dañ koy jël di fay xaalis bu bëri pour ñu defar seen militants yi mm-hmm. euh, dans ce qu'on appelle euh, le réenchantement civil maanaam lëkkale ak takkale mm-hmm. ak boole li nga xam ne nii mooy citoyen bi ak doxalinu nekkin ci askan waaw loolu nag bu fekkee ni parti politique réussir ko bu fekkee ni dañoo am faiblesse foofu la dañ koy mottali ko saaga yuuxu fitna. Mhm. mais damay wax rek ni ñetti yooyu yëpp doxul seen réew. réew taxawaay bu mucc ayib ngay am am yaru tegu rafet am yaru bu mucc ayib di sol lu jekk te am worma nit ñi naw la ne dox leen diw réew mi parce que wóolu nañ ko ci. Mhm. mais tànk mi ngi nekk ay saaga ay xiiro ak ŋaayo euh, Ablaye bi mu demee ba nit ñi di ko jiiñ fitna. Mhm. pour mu rassurer nit ñi dégg nga li mu daf ni du ma dox bu ci ay néew pour dem palais. pour dem palais. finalement yàlla muy na ko jox nguur. mais Sénégal daal moom li ma mën a conseiller politique. Mhm. mooy ku ci affaire wax lu rafet. Mhm. del wax lu yiiw. Mhm. del sol lu rafet. te di ko doxee tey toog ak aussi ñi nga xam ne ni ay mag ñu yiiw la. ku askan wi dinañ la bàyyi xel ba boo bëggee ñu woteel la ñu woteel. mais man jàpp naa ne réew mi kenn du ko jël ci fitna ci wax ju ñaaw ak ci xëppante acide comme vous ñu dem ba egg fi nga xam ne tey euh, bu manifestation amee euh, ñu nemmeeku ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan apparemment li ni mel du sax yëngal askan wi nga xam ne ñoom la concerné dañuy jël seen xel teg ko wala seen i gët teg ko ci leneen muy ñii réussir nañ seen mobilisation wala police jël na ñi leen tegee boor wala lii ak lii fàtte carrément ñi nga xam ne ñoom ñoo ci faatu muy euh, benn banalisation gi nga xam ne ñu ngi koy gën di nemmeeku ci ci ku ñàkk bakkanam ci mim réew. waaw day wane ni rek nitee di bi ñuy bëgg nag mën parce que moroomu nit laa la su moroomu nit même soo ko xamul. Mhm. bu demee ba wane ginnaaw waroo mun a ñëw pour photo. Mhm. waroo mun a ñëw pour euh, filmer image am mais léegi ci dëji mhm. célébrité yi ak ñi nu lekk sax célébrité. levée de corps bi dañuy filmer ay nit. bu làmb amee su mbër mi daanee nank ñu ne noo làmb ji neexul parce que doonante wuñ ba direct am de bu fekkee ni da ngay seetaan film yaa ngi ciy gis ay scène de violence ay dóorante ay voilà bu fekkee yaa ngi seetaan cinéma tey hmm. donc ñun ci suñu doxalin dañoo dem ba nitee di gën a ñu nekk nit te lii waykat bi doon ne li ko yitteel mooy nit ñuy nite hmm. askan yëpp nag li ñu yitteel mooy ñu delluwaat ci nite parce que gis nga nitee boo ko defee war ngaa jomb yow di puukarewu wala ngay Euh, nasaxal ki nga xam ne ni bakkanam ak bakkan ni mu foore ak suñu borom ni mu ko fonkee su xasee ba rak ñun ñëpp dañ ci war a am benn rapport boo xam ni la ñuy wax rapport de respect mhm. maanaam yëg nit ak considéré ko mais suñu demee ba nag léegi ñu tudd banalisation mhm. maanaam néewal euh, nu mu tudd comment dirais encore dayoo nit ki nga xam ne dafa génn àdduna. Mhm. mais su boobaa ñu ci musiba te kenn xamul fan lañ jëm. mu am tamit euh, euh, li nga xam ne moom mooy euh, insécurité bi parce que léegi génn sa kër sax amaane na ku nekk war naa mën a tiit muy suba si muy digg bëccëg bi yor-yor bi heure bu nekk daal agression yooyu ak kidnapping viol yi nga xam ne yëpp a ngi dajaloo docteur li ni mel tamit suñu société bi fuñ jëm. waaw mais suñu jëm mooy xam nga réew suy dox. Hmm. soo bëggee nit ñi tëdd a xel mu dal mhm. da ngay anticiper mhm. mais ñun dañoo nekk ci réew moo xam ne au nom de la teranga au nom de ñun daal dañoo tijji suñu frontière yi mun a yàmbalan mhm. ku jiw mu dugg kenn du la contrôler kenn du xam yaay kan fii kenn xamul Sénégal kan mooy kan di nga bokk ak voisin ci benn palier yéen ñaar ngeen dëkk pendant deux ans doo ko dégg mu wax wolof doo ko dégg mu wax tukulóor a wax ñu daal moom koy bàyyi mu évoluer donc politique préventive yooyu en termes de gestion de sécurité day reposer aussi euh, ñi suñu takk der yi ñu recruter ci en nombre et en masse. Mhm. jox leen ay jumtukaay te ñuy mën a di def ay patrouille suba ak guddi ba pare ñi nekk ci yenn euh, axe ci yoo xam ne c'est c'est un peu névralgique d'accord. Mhm. ba bu ñu leen waxee xob am na jafe-jafe bu am tam ñoom ñu xëy ñu ñu intervenir mhm. mais tant que problème amul ba ñu xëy benn semaine di patrouille di di rafetlu. su ko defee benn moment ñu régal te loolu dafa war a bokk ci liy meublé décor Dakar ak décor région yi. Mhm. sooy dox nga xam ni sama xel dina daal parce que police mu ngi teel endroit wala mu ngi teel endroit ba pare di visiter oto particulier yi oto oto administration yi lépp ku la romb nga arrêté ko laaj ko ay papier xool lu nekk ci biir. Mhm. amaana loolu ñu ko defee dina am saafara mais suñ ko bëggee bàyyi nii moom. Mhm. donc foncièrement. ça va être la catastrophe. ñu jeexaleeg politique bi tey tension biñ ci gis euh, bu ki xëccee fii kii xëcc fii mu teeng élection dina am du am ak déet lan lañ mën a xaar ci élection yi ñu dëgmal nga xam ne campagne. waaw a heurté hmm. bi dafa bëri. Hmm. mais damay wax nag ni Sénégal baaxoon mais bu ñu demee ba ci cappaandaw la. Hmm. dañoo war a jox askan yi moom mu. Euh, xëy na xale li nga xam ne mooy idéologie li nga xam ne mooy philosophie li nga xam ne mooy programme politique yi li nga xam ku nekk bu la dégloo mu ne man malgré ñi ma déglu yëpp kii moo ma doy. kii mhm. askan wi wax ni nag moo ko doy ñu xam ni kooku la askan wi tànn parce que ci démocratie. Mhm. tool yi mën naa bëri lool waaye askan wi rek moom moo am sañ-sañu tàqale ñaari camp wala ñaari parti sinon li ñu yenn di ñaari camp yi li ñuy wax yëpp li ay publicité lii ay élucubration. Mhm. mais nañ xaar ci pandaw la incha xam naa sénégalais ak seen maturité dinañ génn voté ñu ki ñu war a woteel a gañ. d' accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax docteur Abdou Khadre Sanokho. waaw a merci docteur.